lenn moom man nangul naa leen ko muy ça se voit que ni ñoom muy le président ak le premier ministre yépp jaar nañ impôt et des domaines li tax ma wax loolu mooy seen première réaction ci passeport yi la jëm passeport yi mooy léegi am na duplicata ki nga xam ne nii passeport am mu ngi dem di ko renouveler te passeport boobu matut cinq ans jeexul yow double ngay fay ci timbre bi muy vingt mille francs quarante mille francs bu dee Sénégal bu dee fii muy soixante soixante quatre euros loolu man ànd naa ci li tax ma ànd ci ba pare man ni ma jàngee noonu lañ ko defee mooy que ni peut-être soxla nañ fond te fond boobu noonu xam nañ ni ñun les Sénégalais li ñuy perte ci passeport dafa bari ñu indi duplicata boobu noonu je suis entièrement d'accord ci boobu côté li tax ma d'accord ci mooy ñun li ñuy perte passeport dafa bari te passeport. xaalis lay jar mais doxalin boobu noonu ñu doxale ci benn yar ñi nga xam ne ñu ngi ya sànni seen passeport yi ñaareel bi am ci benn fond noo ko jàngate xam nga ñoom den noonu dëkk bi am na alal joo xam ne buñ ko jëlee jaarale ko fañ ko war a jaarale kàddante waroo cee fay dara passeport war a cee fay dara parce que nationalité nga ci dëkk bi den la ko war a defaral gratuitement biñ faloo ñu yokk ko moom baax naam baaxul moom fen neen mais sëñ bi nag passeport fuñ ko fuñ koy defaree gratuite nag ban dëkk. non ñoom ñoo ko waxoon. ah waaw mais ci njëlbeen bi nii peut-être dañuy defar fond rek après ca kanam. waa ci njëlbeen bi laay wax man kay ci njëlbeen laa nekk nii. ah waaw man moom moom dañoo ñëw. ñoom benn ko de moom. ñoom denn li fi nekk ci zircon nekk fi ci or nekk fi ci gaz ak pétrole nekk fi ci bétoog lu ne war nañoo mën a jël alal jooju def ko ci askan wi ba sénégalais du fay bulletin de naissance sénégalais du fay carte du fay passeport ñoom ñu ñëw yokk ko quarante mille ñëwaguma ci raison bi mais dama bëgg nga xam ne fenn. mais mais attends nag du kes du yokk foofu damay profité di ko leeral yokku yokkuñu passeport ñiy defar duplicata ñooñu ñooy fay double bi mais kiy déposé passeport son premier passeport wala passeport bi dafa jeex muy renouveler kooku vingt mille francs lay fay bu dee fii trente deux euros kiy fay quarante mille Sénégal soixante quatre euro fii mooy ki nga xam ne duplicata lay def. mooy passeport am jeexul daal réer wala dafa tappale wala lu mu ci mënti doon mu dem di ko renouveler ñu gis ni passeport ba mu yoroon jeexut matala ko kooku day fay double bi loolu man ànd naa ci. waaw kon kon ñu xam ne sénégalais bu doon tukki sa passeport réer Diomaye Faye mi nga fal mu ne da nga war a fay ñaari yoon parce que yow yaa ko réeral bu sa kër lakkoon sa passeport lakk ak méttit boobu yëpp. Diomaye nee na da ngay fay quarante mille nañ ko xamee nii tamit baax na li nga wax noonu. waaw mais lakk bi peut-être foofu exception day am boo yóbboo. boo yóbboo non non non mbës ragalal yàlla non ragalal yàlla yow da nga ne. durant passeport bi bu jeexul nga war a amaat. dangay ngay fay quarante mille lii nga wax. waaw mais xam nga boo yóbboo certificat perte ne da koo réer. bokk ak nga ne sama kër dafa lakk par exemple. document mais lu waa xamul kër gu lakk kër gu baax. loi bi daf ne ku sa diiru passeport jeexagul boo bëggaatee passeport au lieu de vingt mille quarante mille ngay fay ma ne la nag loolu da ciy tàbbi ki nga xam ne këram dafa lakk ba jeex passeportam lakk mhm. nguur gi sóoraale wu ko amul exception ak lakk gi métti bi yëpp jomaay daf ko ne fayal quarante mille ma joxaat na passeport bi nga xam ne sénégalais nga yaa moom lii la wax yokkuñ ci wàññiwuñ ci dara nga doon tukki am accident sàppoor jëlee la fa xamatoo foo ne say saak réer jomaay nee na quarante mille ngay fay. mais wuy ma ñi ngay mute trente secondes nga ko def da ngay da ngay changer option trente secondes bi nga def ko durant tooral live maanaam durant tout la toute live bi da boo leen silence noon nga leen silence mais loolu moom man personnellement ànd naa ci ndax man dama ànd nga ci ne ku sa kër lakk tey amoo passeport nga war koo defaat nga fay quarante mille non fi non pas précisement ci loolu ànd nga ci ne ku amoon accident tey nga xam xamoo foo nekk ñu jël la yóbbu hôpital sax saak réer ci àll mais sëñ bi est-ce que xam nga ne fii ci côté Europe au moins quatre-vingt pour cent des moodu moodu et faatu faatu seen passeport yi ñuy renouveler yeggul cinq ans ñi ëpp renouvelé wuñu dañuy réeral dañuy lakkale wala lu ci mënti am mais seen passeport boobu ñuy renouvelé matul cinq ans te loolu tamit ak manquement de talent yi am ak yeneen ak yeneen c'est pas normal. su dee li nga wax dëgg la pourquoi ñu wax ne ku nekk bitim réew mais sénégalais la ñu wax gis nga wax danga koy dëj ni mu toogee denn bépp sénégalais boo xam ne durant sa passeport jeexagul nga soxlawaat passeport. quelle que soit la situation ça exceptionnelle duplicata nga bëgg da ngay fay quarante mille. Mhm. yow nga may indil ku nekk Europe Modou Modou Fatou Fatou waaw d' accord man ma indil la ki accident loolu ki ñu agressé dóor ko gaañ ko. yéen ñi naan ay Macky la du du du du jomaay Macky moo def décret boobu noonu waaye kii bii nu mu tudd gouvernement bi moo ko accepté moo ko validé. non. xam nga. loolu sax lay ko du du xel kon Diomaye lu mu liggéey Macky la am na lu Macky commencé moo koy inauguré. Mhm. ku aaye wal sa moome. dëgg la. waaye dama ne ki doon génn dem yoonam manque sécurité bi ci réew bi ñu dóor ko ba gaañ bañam sàcc saagam yóbbu ko jël passeport ba sànni ci mbalit kooku defee quarante ba. mais euh, sama sëriñ kaay ma wax la benn affaire fii Espagne exemple. bu sa euh, kii jeexee sa permis par exemple bu jeexee boo koy renouveler c'est gratuit mais bu dee dafa réer bu dee dafa réer walla mu damm wala yu demee noonu nga dem di ko renouveler da ngay fay man je trouve ça normal. non amu ci problème mais dama bëgg nga boole ci rek ki accident. dama bëgg nga boole ci ki ñu agressé dama bëgg nga boole ci ki ki mais yow xam nga boo nee boo nekkee accident wala ki këram lakk ñëpp dem ku dem ne damaa lakk la damaa accident. mais su boobaa ñoom la rek mais dama bëgg nga boole ci ñooñu rek man ma li nga wax li nga wax dëgg la mais boole ci ki nga xam ne moom sénégalais la ci dëkk bi la dëkk gëm projet Pastef yàlla nattu ko këram lakk ko day fay quarante mille boole ko ci. waaw loolu loolu loolu mais man man daal ci wax ci gàttal. man dama ciy dox dama ciy dem dama ciy dikk ànd naa ci foofu moom c'est à saluer yéen ba pare rax ci li ci leex booy léegi bu fekkee ni fond rek lañ bëgg léegi am fond ci boodu boodu yi moom ndax boodu boodu yi li ñuy yàq ni passeport ak liñ ciy tappale dafa bëri bu loolu weesoo léegi sëñ bi nag nañu tëj parenthèse boobu noonu te dugg nag ci guddi gi te balaa ñoo dugg ci guddi gi dama lay laajaat KM billaahi wallaahi tallaahi. xaw ma koo namm xaw ma kaa emm. billaahi wallaahi wataalaahi namm nga ko. non duma la waatal caaxaan xaw ma kaa emm kaa emm ko. ok xam nga Kadija. bu baax. ok mooy kaa emm. non n pas m. ah kaa n kon kaa n. xam naa ko bu baax. Hmm, mhm. ko. ndax namm naa wala namm ma weeru koor gi. namm nga ko wala mu leer ndax man namm naa ko wala namm ma. yow ba xam yow Cheikh Ahmed Cissé taalibe sëñ sëriñu nante yi Cheikh Ahmed mu sell mi yow ba xam nang mm-hmm. namm nga kaa enn. namel fan koy nattee <laughs> maanaam namel koy nattee. namel fu soo demee fuñ koy nattee fu mu jeexee. Hmm, foofu nga man foofu laa commencé waaw. barke rasulillah. tontu bi leer na. nañ. Uh-huh. woo ak lan. woo maa ngi koy dégg chaque jour. wax nga ko da namm nga ko wax nga ko. moom xam na ko. namel bu dëggoo xool da koy yëg. ndeysaan. oh sama yaram a ngi daw. Oh, sama dawaat na. namel bu dëggoo rek xol yëg ko. Oh, bu dëggoo rek xol yëg ko. te muy dëgg. oh. KN. KN bu dee jëmm ji day wax ak yow di saw man ma xamal la ne la bu ko ko toppee. bu dee dafa yéegal niveau yi bu ko ko toppee bu dee daa am lu mu lay jaay bu ko ko toppee li ma la mën a wax ba wax la ko li ma la mën a xamal ba xamal la ko namm na la na la de te loof na la loof na la. wax la lu gàtt te du bari. ayca firi leen seeni nopp yéen taalibe yi as gor bu bëggee du bañ bu jàppee tey du xalab ëllëg. oh. gars dee kër waaye. Mhm. bu dee gor nga bu dee gor nga. munoo bëgg tey bañ suba. dëgg la. munoo toog gërëm tey nga weddi sa ngërmande suba. dëgg la. su boobaa buñ ñu laajte kan mooy KN mais neen laajte yow mi waxoon démb yaay kan. oh. man suri naa loolu. jëri ma ca wàllu Alsan Samba Yaasin setu Birane Jama jàngo laa su may maam ku ci dul buur di walli. oh com. ñu jàll ci leneen. Bambino tutto posto, amore mia. Oh, bellissima, bellissima, bellissima, bellissima. Astaghfirullah. Ah, IKN. kaa en yëkk nga ah boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la du noonu la. Uh-huh. moo kaa en lii lan la boo lakkee dëkk bi tubaab bi jàpp la ah, ah bu loolu weesoo sëñ bi ñu dugg nag ci waxtaan wi. Uh-huh. sëñ bi dañoo nekk ci weeru koor am na ñoo xam ne tey lañ jàpp laylatul xadr. Uh-huh. lan moom mooy laylatul xadri ak lu ko waral ak ci ban guddi lañ ko taamu wala ci yan guddi waaw message ka en ngay lire mhm. non non non benn waay laa doon gis ah ok ok laylatul qadri wax naa la ko. Hmm. xam nga dafa am lu mu sa xew ci diggante yàlla ak seytaane balaa muy nekk seytaane histoire bu bu yàgg la. ndeysaan diggante yàlla ak seytaane lu ca xewoon balaa moom muy doon seytaane. waaw boobu mu ngi doon wàlliw maanaam du yonantu waaye wàlliyu la. Eh, wàlliyu Assane Karmala yaa ngi dégg. Mm-hmm. wàllu yu ku yàlla méngoo mbiram. ku yàlla gërëm koo koy ku la yàlla gërëm. ba pare méngoo sa mbir. seytaane noonu la meloon. waaye doonutoon malaayka doonutoon yonantu moom mbindeef la mu yàlla bindoon may ko tawfiix muy jaamu yàlla. muy jaamu yàlla ba am ngërëmal yàlla. mu jaamu yàlla ci mbooleem anam gu ñuy jaamoo yàlla rek moom jaamoo na ko yàlla. macha ba benn bis moom seytaane. Mm-hmm. mu wax yàlla na ko li ma la jaamu. ak mm-hmm. li ma la bàkk bàkk. Mm-hmm. Mm-hmm. kenn mën a tut laa jaamu lu mel ni li ma la jaamu mm-hmm. yàlla na ko dina am benn xeet bu baax bu barke dama leen di may ñaari ràkka yoo xam ne benn moo ëpp li nga mës a jaamu yi muy ñaari ràkkaay fajar keroog la seytaane fiire doomi aadama di ko taxaw di ko taxaw ba tey seytaane musut ñoo bàyyi ñaari rakka yooyu nag. Mm-hmm. yàlla def ko duplicaat encore mu doon junne jour mooy laylatul xadr allahu akbar